Sénégal 4 TV yow yakum. ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Si vous gan nga ci kër gi nag bouton abonnement bi teg bul fàtte la cloche de notification bi ne ngir bañ a ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage. Balla Gaye Gris Bordeaux du combat xam nga xam nga tax du combat Balla Gaye Tapha moo gën doon combat téeméer ju ne woon Balla Gaye Gris Bordeaux Balla Gaye Gris Bordeaux bu ñu bëree da ba ñu bëree woon yàgg moog moo Tapha Tine bu ñu bëree yàgg na échantillon yi moog Boy Niang aussi bër ki démb la ñu kañ lañ bëre ñaata Balla Gaye waaw bu ñu bëree xawoon yàgg tuuti sax moog Bombardier théorie revanche la day jëli revanche yi Bombardier mais moog Gris Bordeaux moom ànduma quoi moog Tapha Tine laa gën a gis. mooy loolu. dama ne la Boy ñaax neexul ba neexul booy boo ñu ne dama faral Balla Gaye mais cinquième position la foofu wala quatrième Balla Gaye mu leeral diggante moom a Gris mais le premier mu dem jëri revanche am si Bombardier daj dëpp bi moom moom moom la war a def guddi yi toll nii parce que ñoom li leen dese si làmb mun nañ ne seen diggante tuuti doole bi ñu dese nii si lañu war a jëm profité jël seen revanche ñi leen daan. buñ ci amee victoire am ko si buñ ko si amul buñ ko amee victoire jéem a seeti laneen nag mais fi ñu toll nii nii nii nii nii buñ fa nekkee di mayi boy yi chance fële war a jëlee seen revanche jëlee ba ñëra dem ñooñu dem ak seen seen victoire lambu calcul la waaw moo Bombardier daan na ko fu ñu waxee Bombardier mi ngi naan kii moo Gris Bordeaux Gris mi ngi naan leerul bu ñu boolewaatee ma door ko mu daanoo combat la Gris moo tëggaat combat boobu noonu moo Tapha Tine ñëpp a ngi koy daw ñëpp ngi naan ñu nekk si kaw dañ ko ragal bala Gaye taxaw na ne ñu ko ragal mooy ñëm laalalugul bu mun ta am combat nañ ko jox mu bëreeg moom xam nga la moo tax man la yoon la mu nekk tey ñaar ñi gën a prouvé si làmb lañ wàccee jox leen booy muy Balla Gaye Modou Lo loolu tax man la fi ñu toll nii sa xel ngay waxee rek wala Gris Bordeaux neexuma naa ko wàcce ba fële xoolal bala Gaye Modou Lo liñ def si làmb entour biñ nekk kenn def ko fa waaw boo Bombardier sax kay wax ne donte am na defe tamit jël na roi ñaar yoon mais ñeneen ñi ñëpp kenn defu ko fa ah te xoolal ni ñeen wàccee jox leen ay booy làmb moo tëddee noonu doo jël kenn nga sànni ko fu la neex làmb ñëpp ay kii lañ ñëpp ñëpp ay adversaire lañ comme ni ko gars yi waxee rek fii maanaam ku si nekk tey man mun naa classé lu ma neex xaarim gracias ñu classé lu la neex nga ñëw classé lu la neex te lépp ay làmb lay doon xam nga Gris Bordeaux ak Bombardier yi kooku neexatul kenn ñaari yoon ñi ngi bëri ñaari yoon yëpp xanaa Modou Lo ma am si moom ndam kooku neexatul kenn tey Tapha Tine nga fay dugal ak Lac de Guiers nga xamante ni yaa ngi dégg même bu bëree Modou ñaari yoon combat yu metti ngay gis ba pare nga gis ko seen seen combat mooy day metti mais daf mel ne ñoom ñaar mënante wuñu sax ni koy gisee dañ mel ñoo dañu xaw tolloo doole même su Modou Lo amee si benn ndam ñoom ñaar seen combat day metti Tapha Tine nyop nyop nyop nyop nyop de nyop nyop nyop nyop nyop nyop te nyop na te nyop gi amu fa place nyop gi nyop dafa nyop sax place dafa nyop nyop nyop la fa nyop man nyop da nyop fa nyop gi ak nyop nyop nyop fa nyop nyop ak nyop de nyop nyop nyop nyop nyop Gracia ay nyop nyop la wax ay argument nyop leer nyop nyop nyop la wax gis nga nyop nyop marché nyop di nyop fa nyop di nyop fa nyop ci naaj nyop poussière bi nyop ah, ba nyop nyop dem Argentine gis nga fa la fa am nga bëgg a retourné waat naan da ngay ñëw toogaat kolobaan di jaay loolu mënul nekk nañu waxante dëgg amul benn mbër bu doon fayeeku yenn som yi ngay ñëw di ko waat di bëree yenn kase yoo xamante arrangé wu la benn mbër du ko def loolu day jaral mbër yi dalee di jaral ñu bañ a bëre mais loolu mbër yi duñ ko def loolu moom maa la fa wax bul sax sonn affaire bi noonu rek la demee niveau biñ passé moom la promoteur yi bëgg leen indiwaat te loolu mbër yi duñ ko nangu bañ a bëre leen koy gënal parce que buñ jëlee combat seeni coono rek la tey ji yow boo doon dépassé si combat plus de cinquante million léegi ñu bëgg laa fay quarante millions est-ce que di nga jël combat nga bañ a bëre moo moo lay gën a. combat moom buñ tànnul ah pour Balla Gaye Balla Gaye dara dàqu ko waaw ay combat am Balla Gaye Bombardier dara dàqu ko Balla Gaye Gris Bordeaux dara ko bu fekkee combat la ñuy wax tànn kay bu amee mooy ñu tànnal ko Boy Niang wala mu dem moom mu tànn Boy Niang loolu mooy tànn si Balla Gaye bu fekkee Balla yi moo tax di gaarwaale foofu moom bu dee làmb la ñuy wax balaga yi ay kombaam yu logique moom ak Bombardier la wala moom ak Tapha wala moom ak Gris Bordeaux Balla yooyu ñooy ay ko kombaam waa gars naa leen ziyaare leen jox leen seen wàccuwaay bu man seen pour yi moom xàmmeewuma A ak B loolu mooy problème bi daal comme lu metti mu daw wax foofu làmb léegi ñu war a tase mënuñoo bëre lu indi loolu mooy que promoteur yi la kooku moom du ci problème mu mbër yi ci problème mu promoteur yi la sànq wax naa ko fii ma ne ñun bu ñu bëggee combat yi ñu bëgg ah ah promoteur yi xooluñu loolu promoteur li muy xool léegi ci làmb mooy combat mbër mu ko mën a indil xaalis loolu lay xool ci làmb promoteur yi nekkatuñ ay amateur ay commerçant lañ ci biir làmb ji loolu mooy problème bi tellement nii promoteurs yi dañuy ut xaalis ci biir làmb ji buñ ci mënee gis ne yow mii buñ la tëggee am ci yow xaalis ñu tëgg la mais xooluñu combat bii ak bii neex na non non. waaw non bee moom macha allah quoi pour poule bee baax na parce que poule bee dafa doon lu garaaw lu mu fa gis gis man waaw parce que Ama Modou Lô taxaw na ba noppi dañ koy confirmer Gris dafa am dafa amee revanche Bombardier Bombardier dafa war a jëli revanche am foofu waaw ku kuy gi tamit doon na fi langal doon na fi langal Bombardier doon na fi langal kii Gris Bordeaux pour bëreeg moom mu doon tey Gris Bordeaux foofu foofu day am ñaari combat yoo xam ne ñaari mbër yoo xam ne soxla nañ ko dafa doon foofu ay combat yu yu neex a neex waaw te Bombardier war na jëli revanche am foofu war na jëlaat revanche am war na joxaat Modou loo tamit revanche foofu combat bu neex la doon Ama Baldé mi ngi ko doon wut tamit. coow li moo bari trop te kenn ku ne xam nga li nga war a def mais léegi lu yomb moo amatul fenn mbër yi léegi li mu moo moo moo mënatul a nekk jàpp mbër ba pare doog koo jël loolu amatul fenn yooyu nañ ko bàyyi. waaw combat yu neex yaa yi fi xam nañ ko ñoom ñëpp xamante nañ seen biir xam nañ ñu war a bëri mais ne fii ku nekk di tànn koy bëril at yi de moom du la xaar moom at yi moom. du la xaar chaque jour say at day dem waaw waaw Bombardier Eumeu Sène moom buñ góorgóorlu tuuti bu yeexee duñ bëreet. Gris wax naa leen fii démb ak barki démb nee naa leen am na mbër yi nekk ci kaw astaf bu baax moo tax ñu yegg fi ñu yegg ci làmb mais bu nekkul woon staf bu baax duñ bokk ci ñu ñuy tudd ci làmb doolu Gris daf cee bokk ah mais Gris Bordeaux Balla Gaye nii combat la combat bu neex la moo ma dàqal Balla Gaye Tapha Tine waxuma nag Balla Gaye Tapha Tine du combat mais Gris Bordeaux combat kii Balla moo ma dàqal Tapha Tine Balla Gaye oh, man tey jii su ma ko doon jox adversaire bombardier laa koy jox parce que seen combat bu njëkk ba neexoon na yàgg na waaw Gris Bordeaux combat am ak Balla Gaye neexoon na yàgg na Tapha Tine nag combat am ak Balla neexu Tapha ko combat mag la dëgër neexul. kan nga wàccee jox ko booy Balla Gaye ban booy nga ko jox Balla Gaye kooku booleel booy ñaa te booy ñaa dafa bi baax si àddina bi yëpp ànd si loolu kooku booleel Tapha Tine ah nga ni nga ni boole ay booy kooku booleel laa dëgër sax moom ñoom ñoom yàlla def na du ñu bëree mais kooku booleel foofu noonu kan ban booy am seen mi ko daan ñaari yoon nga ay ban ban booy nga jox Balla Gaye si kii bi nii. si pulaa bi nga tëgg nii tournoi bi ban booy wax ma ah nga jël guy gi di ko boole si roi bi di jël guy gi di ko boole kan Bombardier Bombardier mi daan Balla Gaye daan Modou nga jël Lac de bi nga xamante ni guy gi da non naa sax Lac de jiir boobu bi nga xam ne guy nag nu asal Modou daan nag yaa ngi dégg moom di di di dix ans de victoire la am sa waay nañu wax làmb nag non boo ñaa trouvé wul boo ñaa trouvé wul c'est vrai c'est vrai boo ñaa trouvé wul nag boo ñaa xam nga ñi ànd moom ñëpp mooy ñi xam ne jàpp nañ ni muy dëkkee Balla Gaye bu ko jëlee daan ko nañ waxante bul ne àdduna bépp ñëw man ànduma ci te si boo xam ne ñu si bëri kenn ànd ko si dañoo boo ñaa na dem bëri ñoom war a bëreel ah mais am na ñoo xam ne dañoo ne ànd na si mais ku si nekk xëy na la nga wax fa nga wax am na foo ko teg ku si nekk la nga wax ñi xam ne nee jaar na nañ leen nangul ni jaar na ñi nga xam ne nee nañ jaarewul man mii si ñu ne àggu fa man si laa si la ànd. adversaire da ngay trouver da ngay trouver gu Lac de Guiers non Gris dafa trouver tout dafa trouver ba ne ba yegg ci kaw mais léegi dafa defatul dara nañu waxante dëgg guy gi ak seegut fu muy bëreeg Bombardier fu muy bëreek Modou Lo tournoi boobu mën ko guy gi mënu si bokk Lac Gris Bordeaux aussi Gris Bordeaux aussi moom moomet mooy loolu dafa war quitté fu mu nekk wala moom day toog rek quoi am am waa Fass baax di ki jàppale rek muy dem quoi dañu wante dëgg quoi gii gi kañ la gi jàmm victoire kañ la gëj gëj wenee lu ñu xam yàgg na yàgg na dix ans ba mu gëjee ba mu bëree ëmb euh, <laughs> tey tey ba léegi amatul victoire wax leen la waaye yéen dañu xool ñi trouvé ñu boole leen tournoi bi mën a neex mais Gris Bordeaux instant yi toll nii trouvé wut instant yi mooy loolu am non Euh, guy gi moomet mënul bokul fof fof daal génné fa nga duggal fa tabatine tabatine nak modlo ak Modou Lo mos ñu bëre Tapha Tine ak Bombardier revanche la yaangi dégg gir bo do fu mu toll ni aw soxlo ay staff bu baax wala ñak staff bu baax parce que mag la déglu mu baax lu mel wax ku mag ku mag ku mag ay ñew modlo bala gay mag nga. dégg entraînement mu fu rek mais toll fu mu toll ni fu tollu ci moyen chance. waaw ah, Gris Bordeaux la may chance ah sinon dana dana bu affaire yi jeexee moom du ko am combat de foog mu laal ci booy yi bàyyi la Gris Bordeaux ngeen wax ay Balla Gaye quoi dafa day soof xew Balla Gaye Gris Gris Bordeaux du du làmba Balla Gaye Bombardier sax du làmba. Balla ba fu muy mujjee moo la gën a xam ni mook booy naa rek mooy taxawii ji ndax promoteurs yi ñu ngi ciy wax njarndéem la yaa may dégg fii daal grand contre wala ñun laale woon sax am na léegi bay xool ay dix ans voilà ñu mënuñu laalewaat mais ñu laale ay deux ans trois an nga bëgg ñu bëriwaat non non non day soofe grand contre petit bal ga ko ko jotee joxoo ko Boy Niang wax joxoo ko keneen man man si ma gis-gis boog lamb la